jaajëfal leen ci ànd bi ngeen di ànd ak ñun mbokk internet bu ci m TV Sénégal jaa ngeen jëf ci teewlu bi. jërë ngeen jëf mbokk internet ci 5M TV Sénégal mbégte ak bànneex la ñuy am ànd ak yéen di leen dégtal xibaar yi le ci seen chaîne bile la ci gën a fës Ousmane Sonko ñu xam le ni kon moom mën naa bokk rek ci liste électorale yi ginnaaw li nga xam ni sàkku woon nañ ko avocat wam yi. tey jile ci alxames bi tribunal d'instance hors classe bu ndakaaru kon moo daal di rek xamle lu nu mel ci mbiru Ousmane sonk ak direction général des élections jëm rek ci wàllu radiation maanaam kon bi ñu waxee ne Ousmane Sonko nag du bokk ci élection yi waaye tey ji li kon tribunal bi euh, daal dinay joxe dëgg kon Ousmane Sonko mën naa bokk euh, ci liste électorale yi kon euh, ginnaaw rek tribunal la nga xam ni moom la rek daal di fësal mu mel ni kon juge bi moom waaw sax la wax jëm ci mbiru Ousmane Sonko dogal boobee nga xam ni kon si fay moom wane woon na ko ci fukki fan ak ñaar ci weeru octobre bi lee ñu daal di weesu waaye mu mel ni kon coow la juróon ginnaaw direction des élections kon ñoom ànduñu ci woon waaye itam rek bañoon joxe lu jëm ci fiche de parrainage Ousmane Sonko ak ñoom mu àndal kon tey jilee daal di nañu rek am dëgg jëm ci dogal bi nga xam ni kon juge bi fësal na ko jëm itam rek ci ki nga xam ni nag moom mooy maitre maître Clédor Ly mu nekk nag avocat wam nekk itam rek coordonnateur bu jiite avocat yi moom maire bu jigéen Ziguinchor kon ñu daal di dëggal la nga xam ni sàkk woon nañu ko la ñuy def kon jëm jëm rek ci mbir mi mooy rek daal di déposer rek ab recours ci cour constitutionnelle cour suprême jëm rek ci dogal bi nga xam ni tey jii seen seen client bi am na ko waaye itam rek dëgg bi nga xam ni seen client bi itam am na ko te fësal nañu ko.